alu yow yow yow ndongo yow ndax man nag maa yeb wala lan la ba mañ muus ci roq bi suñ fréquence bi pée ba ba tey munoo fexe ba génn imbécile yow nii nga defoon bi ma karaam bu bëggee yóbbu Italie espèce yow nga tayle ma ba aéroport ñu annulé sama billet doomi xaj ba maa ngi nii nii nii Sénégal boobu ba léegi ndongo bu ma la nokkul ren jii déwén bu ma lay nokk damay tàmm bu ma dal su ma ko woon yaa moom maa ngi ci pay si pay bi roq ba am nga fa ma yow nga ñëwee taxawee nii. da ngaa kii du yow kii du man ah yow roq bii fi ma tege woon bi roq bi fi nga jaaral ma kepp la fi man bi sama roq la wala yow xanaa danga maa xamul yow. waaw ku baax nit bu la defaree teraanga doo ko remercier. yow ñuusul na la nga naan ay néew sama kaa ñuusuma kaa jox kat tas sa xoon ma sama kaa ah, yow man ngay jox foo numéro man yow xam nga ki ngay jox foo numéro yi hmm. ah, dëkk bi ñi fi tekk ñëpp ñi fi baax ñëpp samay nit lañ rawatina waa Sonatel goo ngay gis. ku baax ku taa damaa ñëw sa kër de li nga ma defaroon doo nga tax ma la doo remercier. xam nga yow deli da ngaa def double deli. ndax yo def nga benn toj-toj ñuy mocc nga ñëwaat defaat deli. toj toj mooy dugg sama bir kër di ruube ba nga tas sama sëy. Ayo, yow mbaa dama laa indi problème yow buusul fële indi ma problème mënut a passé jox ma numéro bu bon. problème ma xool numéro bi nga bind. Ah, xamoon ni waay kii xanaa man daf may bëgg fen wala man maar man numéro bii nga ma jox si numéro boobu nga waaw ku baax dangaa juum. yow kii teema lakk lu bonam 47 la nga def 46. yow yow yow man ma yow man kii man kii man ndax du ma lu bonam. yow yaa juum wala maa juum. léegi ñu juboo ah jox ma sa numéro. jëlal 77. waaw 77. 872. na gaaw tuuti man laa wax. man damay naqari deret man boo ma defee toj damay naqari deret man. yaa juum de waaye du man. bi mooy sa numéro bi mooy sa numéro bi mooy sama numéro yooyu. ah, ah. léegi kon jubóo na. amul problème loolu man du problème. man kay moom man ay fen laay bañ. déedéet man kay man man fen laa bëgg rek man moom fen laa bëgg. gis nga def sa dernier numéro bi set la. waaw bii mooy whatsapp bii mooy whatsapp bi kon tey dara du yoon waaw incha allah de coupé sa téléphone danaa la woo boo fayee sa téléphone tey naa la mus naa la woo tey dee nga am waaw dinaa xaar appel xam nga bii mooy whatsapp waaw mooy sama whatsapp bu baax kon ma si whatsapp bi yow sa bopp yow yaa osé te bon la waaw parce que yow yaa toog rek yow daal ba bitti ñëwee ci kër gi ba léegi rek yow daal sa àdduna yëpp daal da nga koo freiné rek mel ne daal yow yow de xam naa ne daal xaw ma ban façon la. sëñ Moulala bi yëpp sëf ko ndaw si. yow béti man sama cousine la. léegi nag lu sa yoon. man xamoo lu sama yoon man fekkee dëgg wax ko man dëgg ma yàq. sama doomu nijaay la après. léegi nag maa koy jox sagaru njaam lu sa yoon. waaye yow jaab sangam. waa baax na si bi nga naan jabari njaam. daa déggoo jaab sangam waaw. ngaa war a def na nga daan def di liggéey waaye jël benn. sa yoon newu ci fukk ak juróom yow yow sax kañ nga faral béti. amoo ko daan faral man dëgg ma yaa waaba jiiba nga rek dëgg rek. waaw ne ko semu waaba jiiba béti. waaw yow gaawar sa yoon newu ci. keroog damaa wax nga ne ma da ngeen am vie vie vie privée. suñ ñun tamit suñu ñoo am vie de famille. Ah, waaw waaw. kii de nee na yow lay faral nii. dëgg la kay ah dëgg neexut man dëgg ma yaa. lu ma jot ak yow ba may faral. gis dëgg wax ko. mané ko ba nga ñëwé ci kër gi ba légui yow ya, ra yaay liggéey du du yoon da wara jog comme dab di ñafé mais yow dal jël benn affaire rek sëf ko kenn pourquoi ça. waxal ci li de tay man la diw beurre bi. beurre ak mayonnaise laa ci yamalé man dëgg ma yaa. waaw tey man la diw beurre bi. waxuma loolu mburu ma ndaw bi man de tey ni mu jubee ak yow sax ma bi maa ko moom yow bii na fi. mais yàlla moo yow nga jafal ñu di jaf bu ndaw. waaw man wóoru ma. boo wóoru soo wóoru tamit doo jël ci mburu yu mag yi ndaw. non non bu taw bi doy dem. bu mag bi ngay jël man baal ma jël bu ndaw bi. béti jëlaat nga kenn du ko delloo. at na amul solo. kon baax na naa jël bu mag bi. man dama daan woor ba ngoon benn tàndarma laay dóor kon ne samay activité. baax na man namuma dara. Ah. waaw loolu kase la. baax na dinaa ko jël.